Bienvenue sur Salam Vision. yéenekaay yu bari xëye politique tey ak waa front résistance nationale bokk ci opposition bi ñi jóg daal di wan ginnaaw taabale waxtaan yee ca dialogue politique bi li ko waral di wotey gox-goxaat yi Macky Sall ki farandoom di majorité bi toxal ba 27 février 2022 observateur ne su gindiku amul jubawaat naka noonu nag dialogue bi ci boppam ci wàllu politique fi lay jaar tas ndax nag waa front résistance nationale moo ëmb kàngam yi gën a ràññiku ci opposition bi opposition boobee observateur gis ne kenn nit du moom ndax ay exigence maanaam ŋànk ci fenn fi rek tëwa lu ci mel ni audit fichier bi loolu it bokk na ci li ko jural fii mu yegg tey le témoin xëy dafa laaj ne mbaadu nag toxalug yooyu local di wotee gox goxaan yi moo nar a doon ndey xare yi maanaam la mère des batailles enquête ne ko waaw mooy doon ndey xare yi kay ca nag lay doon nar wa xëccoo gi gën a tare mooy ndakaaru gi nga xamante ni toogub meeram ndakaaru ci la gët yëpp tegu ku ne bëgg a contrôler capital bi yéene kaay bi ne Pastef taxaw na sax jatu ba sax Ousmane Sonko di njiital parti ba di waajalab téere ci wàllu décentralisation taxawu Sénégal bu Khalifa Sall ñoom jógtee ay dox mbokk ci réew mi bi bu dee waa PDS kenn ci responsable am Nafissatou Diallo mu ngi wax ci yéenekaay bi waxuma la Ndakaaru waaye ci Sénégal yépp la ñu pare ñoom waa PDS Sud Quotidien ne atte bi na tey lay doon ci loxoy assemblée nationale ba ci amala plénière ci teewaayu ministre intérieur Antoine Félix Diome waaye Sud mel ni ku ci amul yaakaar ci moom même ndaje jëm ci toxal gi ak fànk am ca ndax assemblée googee mu ne majorité mécanique lay doon contre opposition bu xadar naam waaye bu fa néew doole lool la tribune ne lu société civile bi ña ngay wër jàmm ngir xool app bi ñëpp laas ne ko boobépp société nag ñoom la ñu gis ne mooy baax la proposé janvier 2022 la le quotidien ne fi ñu toll daal waa front de résistance nationale ñoom jóg nañu takk seeni bagage ne ci gàttal jalo géetunu source a ne ndaje mu am solo nag dinañ ko ci amal ngir buntu feeñ ci experts yi seen wàllu bopp nag di boroom xam-xam yi la ñuy sàkku ñu indi ci arbitrage di atte mbiri élection ci la ñuy des ba tey xalaatu boole watey député yi ñëw ak bu président fii ci mim réew xalaat boobee lu xel nangu la mooy gis gis su Mouhamed Moustapha Diagne Mouhamed Moustapha Diagne mooy coordonnateur bu mbootaayu Macky 2012 mu ngi ko xamle ci lii quotidien leneen lu yéenekaay yu bari waxtaane ba tey ci wàllu politique mooy bennoog juboo gëcce responsable yi APR yu Podor ba nu ànd amal fa meeting bu rëy ngir yokk ndëgër laay président Macky Sall ca Bokké Diallo be meeting boo xamante ni foo sànni mbàtt mu tag Cheikh Oumar Anna nga cay wax ci Vox Populi ne weddi gis bokku ca Abdoulaye Daouda Diallo di ko feelu ca naan di doon titre foncier président Sall opposition bi nag lañu nañu ko opposition boobee niti fitna niti ay yu xamul fa nuy taxawee tax ñuy jëfandikoo doole ak song yenn taaxi kilifte fi réew mi les échos ne mobilisation bu mag nag la ñu def boole ko ci bennoo ñoom responsable yi APR yu Podor libération moom la ko yitteel mooy askan wa ca Dugaar ak seeni suuf sunu fuqartee ci ñoom ak càcc sax la yéene kaay bi tuddee mbir yi lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeenti hectare yu fa ay privé sàccee ci ñoom ca nag askan wi gis bu Sénégal it kenn du moom am na ci pétrole bi di gaz bi yéene kaay bu ànd ne téeméer ak fanweer ak juróom-benn di milliards yu teg nguur gi génne na ko ngir defarum jumtukaay yi jàllale gaz boobee Aliou Cissé ndax dina dinañu jàllale ca kaan baakub coupe ca Cameroun stade yéene kaay la mu gis mooy Aliou Cissé moom ci boppam ci sursis la ne dese na ko nag ñu ne juróom-benn match yeneen yu mën a yeyee askanu Sénégal bokk na ca Sénégal Togo Sénégal Congo ndaje ak Namibie ci aller-retour ci weeru septembre wuy ñëw record ne Aliou Cissé naam mënees na ko sikkee qualité de jeu équipe bi ñàkk mën a daani kàngam ak it ñàkk wutam pexe ci ndëgg sërëx gi adversaire yi taxawal di bloc bàyyi waaye nag wares na koo nangul ndam yi mu am ci campagne yi nga xamante ni qualifié na équipe bi yépp muy ñetti kaan ak coupe mu des nag waruk ticket bi ñuy jàllale ci mondialu Qatar ci jongante yi war a tàmbali ci weeru juin 2021 Aliou amab xew waaye ci wàllu làmbit Eumeu am na xew sunu làmb nee moytu nag am ñaari defet yu tegaloo moom mi fi nekkoon jamono buuru arène Sénégal Sa Thiombi la waxtaane mu ne Lac 2 capable na daan mbër mu ne ndax Lac 2 neexut élection locale yi day eh. aj bi du yomb de aj bi du yomb de déedéet tribune yéene kaa ne aju la wax loolu de dama ne la opposition bi ci boppam la mu ah, waaye soxla wuñ ko 2022 la wax laas eh. jiixi jaaxaa nga xam ne nag am daal ci datab élection yi waaw waa société civile bi day la ñu bëgg daal mooy janvier 2022 sur sa année réunion bu doy a doy moom la ñu amal nag élection locale 2021 wala 2022 en tout cas ñi nga xam ne nag ñooy xam-xam la ñu woo experts ngir nag ñu daal di kon atee waaw ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ba day ak noonu li ñuy ba ci sa wàllum opposition la ñuy sàkku daal mooy ñi nga xam ne ñooy saytu wàllum fichier électoral boobee ah ak ña nekk nag ca processus électoral ba day nañu gaawal seenu loxo liggéey bi ngir élection yi ñu amal ko laata 2022 yéeni kaay daaw da càmmi ne waaye gis nga nag laata loolee waaw jàpp leen na front de résistance nationale nañ bëggatuñu les éco yéen a kaa ne front de résistance boobu daal dinay gedd jalo bax maar taali maar la société civile ba day la ñuy ci président Macky Sall mi la mooy na koo xaaj ca digg ba gaañaa ngay def kon ay tractation day ngir élection ñu amal ko ci 2022 bi lay moom élection locale waaw muy weeru janvier critique yéen a kaa ne gis nga nga xam ne kon dañu koo ajaat nii ah. dana indi nag ab pëccëxoo jaxasoo ci calendrier ci assemblée tamit la nar a taxaw nag ci dàq élection locale yi lée waaye itam yokkal mandat wu élu locaux yi é eh waay sàmba tey ci àjjuma ji la Antoine Diome moomee moom lañ jox bagage yi de moo fay dem de Le Quotidien yéene kaay ne ñàkk a bi nga xam ne am na ci datam élection yooye front de résistance ba day jalagotul de jalako déedéet te opposition bi lée la dakal nañ seen participation ci waxtaan ya assemblée nationale kay tey lay ate l'observateur ne gis nga wàllum lambi golo gi nga xam ni kon am na ca day ak wàllum dëgg sërëxal waaw tey nag laa leen di expliquer ñi ànd ak Macky Sall mii nan la ñu gasalee dëgg sërëxal opposition bi ba bàyyi leen ci biir saako yi te lépp nag ñi ngi ko jaare kon ci seenu sakute ay exigence yu opposition bi teg ci kaw table ci dëgg la enquête yéene kaa ne gis nga élection locale yooyee waaw ndakaaru njaay jël joob de coow li coow li Dakar la xeex yi la muy bari yëpp ndayu xeex yi la dama ne ndakaaru njaay jël joob la laa la wax même bu dee yi dañu koy dàq teewul état major yi day ñi waaw maa la ko wax de lépp rek ngir gagné Dakar Ndiaye jël Diop parce que waa Pastef day tooguñu de ne lu tax ñuy toog ñin ci élection yi Benno Bokk Yaakaar dong moo jiitu kon kii di Pastef ñin koy taxawuñu war Dakar Ndiaye jël Diop goo gée taxaw bu Khalifa Babacar Sall waaw i waaw nee na gis nga ñin PDS waxuñ sax Dakar Ndiaye jël kese de ñin dañoo pare fépp nag laa la wax très bien ça en tout cas a yëngu évidence démb day ah waaye Papa Diop ak ña mu àndal day discours wàllum waaso diw séeréer la joolaa la tukulóor la olof waaw loolee la waa bokk gis-gis kon di naqarlu discours boobu baaxul de dëgg la looloo tax nag ba waa bokk gis-gis day ña ngay woon na bi yëpp ñu yéegal niveau bi na yéeg Papa Diop ak àndal ci parti ba day ñoom Moussa Diakhaté ak Moutada Seck waaw fas yéene nañoo amal ab ci douane ak Matam gële ca Podor tribune yéene kaa ne ñoom day ba ñu boolee seenu doole nee na ñu weeri gis bokk ca uh-huh. parce que Podor gi lé président Macky Sall ko moom titre foncier la na leen neex Cheikh Omar Anne waaw parce que ñi xam ne ñoom ñoo fi nekk di yëngoo ko tëbaka dal nii yëpp dañuy perte seen temps rek parce ñi ngi continuer di wóolu président Macky Sall ba léegi parce xam nañ ne mooy l'homme de la situation é eh way Samba Abdoulaye Daouda Diallo waaw nee ab opposition la boo xam ne xamuñ yéene kaa ne alaaji Malick Gaye day meeru ñandaan mooy DG wu AGETIP waaw daal dina fay delloo njukkal nag président Macky day parce que alaaji Malick waaw nee na Macky Sall la am sax ci Sénégal gi lée ay ambition yéene kaa gi ne mobilisation ba daal en tout cas gars yi assuré nañ ko démb direct news ne Seynabou Gaye Touré day département Tivaouane waaw daal dinañ ko delloo njukkal démb prix d'excellence du leadership local la parce que nee nañ seeni bu koy turé moomee waaw daal dinañ koy ràññee lool ci wàllum création wàllum tabax di construction ak wàllum financement projet ci ay gox yu bëree bëri sax ci région bu Thiès tribune yéene kaay ne ay da njong day waaw daal dina fekki nag waa Benno Bokk Yaakaar yaa jum wala maa jum ma looloo am ay da ci libération yéene kaay ne Macky Sall sama frère la sama càmmiñ la xanaa xamoo leen ne man ay da bi ma nekkee ci biir kaso bi lée Macky Sall moo doon joxe dépense sama kër ay da ne waaw 24 heures yéene kaay ne gis nga waa Benno Bokk Yaakaar yi li leen war mooy taxaw ci kanamu seetu xoolaat seen bopp ci lu jëm nag ci wàllum wutal xëy gone que politique u emploi ci nekkul ne lay di taxawaalu ak di organiser ay méga meeting ci kaw méga meeting di jàppale président Macky Sall looloy jox gone yi liggéey de déedéet maître Malick Sall day ci Sud Quotidien waaw ci rapport bi nga xam ne nag américain yi daal dinañ koy génnee ni la ci lu jëm ci wàllum ak ak yelleef ak doomu aadama yi te ngaa ñi Sénégal waaw suñu ministre de la justice bi day daa xooti ba de ko fale andu ca de maa la ko wax maître Malick Sall ne Sénégal amul benn leçon naa gis nga a a ay privé de def wàllum banditisme ci lu jëm ci wàllum foncier bi la Dugar lu tolloog cent cinquante neuf hectares la ñu sàcc ca askan wa nag laa la wax la ilaha illallah dama ne la Dugar a nga ca département bu Rufisque ba askan wi ci boppam kon fukki atu yàllaa ngi nii ñu sàcc seen hectares yi laa la wax ay société société privée ñoom ñoo ko def bu ñu sukkandikoo nag ci Diop Ndour Ndiaye nga xam ne moom la askan wa yónni day waa Dugar ak waa Sébi Kip Kip waaw nee na gis nga suuf yooyee 73 la ak 86 hectares titre maa la ko ndaw si nag la muy sàkku daal fi nekk ni la mooy nguur gi ci boppam nañu dikk wax ci lii maire bu Tëngéej day di daaw na ñaa waaw daal dinay wax nag ci Baye Eli ubbil exclusif yéene kaay nañu jafe-jafe bi nga xam ne nag maanaam Baye Eli Eli dëggantaan sacrifice boobee ba may dimbali du tey parce que daaw da ñaa sama frère la <laughs> ñoom bàyyi élidee ku leen jàppale Sénégal gi yëpp nga jàppale moo tax tey ay suul gaz du ko teree xëeñ ak troisième mandat ak yooyu du fi am dañ naan monsieur daaw da ñaa jërëjëf boo paree ma ne laa alaaji tëjë